teral sab xol ak saw yaram yendu fa te bul jàq bul rët ngirub yàqkat fa mbir yay ba woo yàqkat yéggu fa bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen bëgg a indil genn xasida di ab taalif boo xam ne sëriñ Xalil Mbàkke moom sëñ Moustapha Absa moo ko def ci woote yi nga xam ne moo amoon ci réew mi barki démb ba yàlla def wa réew mi tànn ku leen jiite mu def ab dénkaane ci bu jëm ci kooka nag ak wana ci mbirum suñu boroom rek kon moom lañu fas yéene jàng nii ñu ngi ko tàmbalee ci bisimilah rahmaani rahim alhamdulilahi alqaayil fi muhkami tanzilihi sant yàlla mi nga xam ne moo wax ci alxuraanam ji nga xam ne ju xerañ la nga xam ne jamono bu nekk rek day tolloog moom ba mel ni jamono jooju la wàcc jamono ju nekk itam day wane aw yoon di wane dëgg ak ay caaxaan alxuraan jooju suñu borom da cee wax ne wa nuridu an namunna la allazina stud'ifu fi l-ardi wa najcalahumu a'immatan wa najcalahum alwaarisiin wa numakkina lahum fi lardi wa nuriya firawna wa haamaana wa junuudahuma minhum maa kaanu yaxsaruun nee na suñ borom neen danañu namm ñu xéewale ci ñi nga xam ne dañu ne doyadaloon ci kaw suuf ñi ngi xeeboon ci kaw suuf di leen tooñ di leen wàññi danañu leen xéewal def leen ay kilifa defal leen def leen ñoo xam ne ñooy donn mbir yi ñooy mujj mbir yi ñuy mujj pal pal gi danañu leen dëgëral ci kaw suuf na ak Haamaan ak seen kuréel yi ñu àndaloon nag danañ leen wan lépp loo xam ne doon nañ ko wattandiku di ko ragal ci bu ñooñu falo ba tax ñu leen doon gàllankoor ak xeex nga xam ne loolu ni mu dëppoo rek li di xewoon ci réew mi nii mu ne xadatil xukumatu lil bashiri jomaay fay min baadi ma kaanat li zawji mareem fay mu ne nguur gi day mujj na dem ci loxoy Basiiru Jomaay Fay ginnaaw bi mu nekkee woon ci loxoy boroom këru Marème Fay xadatil xukumatu ya Basiiru li tawaxikum faxkum bi ma amaral ilaahu bi dooni xëy nguur gi day mujj na yow Basiiru tege ci say loxo kon nag atteel jiiteel ni yàlla digle ku ni jiite te bul ci bul bul bul réer bul beew warham zaxiran waltu waltu waltu fanna masaakinan laa tantaqim bal jéggalal ñi la noonu kay na nga yërëm ndaw ñi ñeewante ñi miskin ñi amul dara way néew doole yi te bul fayantoo nag li ngay def koy mooy da ngay jéggal ñi la noonu yàllaa fi man téewul ma ngay jéggalee ka muñ kon jéggaleel xool li defar réew mi te wéy yàllaa fi man téewul ma ngay jéggalee ka muñ kon jéggaleel xool li defar réew mi te wéy yaa ngeeg liggéey yooyu laa jëtul xamtalu songal te gaaw ndax yàlla may la ca ndam yu rëy yaa ngeeg liggéey yooyu laa jëtul xamtalu songal te gaaw ndax yàlla may la ca ndam yu rëy bul fàtte Usmaan mii taxoon ba nga xëy falu bul juuyaloog Usmaanu mii foo man di xëy bul fàtte Usmaan mii taxoon ba nga xëy falu bul juuyaloog Usmaanu mii foo man di xëy bu kenn jay ba nga fàtte say niti démb yii bu kenn jay ba nga fàtte ñii bu la kenn jay bu kenn jay ba nga fàtte say niti démb yii bu kenn jay ba nga fàtte ñii bu la kenn jay nanga xam ne it sëñ Bàmba mii ku ko jiitalul sey mbir du sot te xamal bu wér yow lii jomaay na xam ne yit sëñ Bàmba mii ku ko jiitalul sey mbir du sot te xamal bu wér yow lii jomaay sab dénka ngoog na nga àgg niw yoon yaag sa mag ba liggéey fi lool dana fàtteloo gaa yi le wéy sab dénka ngoog na nga niw yoon yaag sa mag ba liggéey fi lool dana fàtteloo gaa yi le wéy santal te julli ci ngën ji kun masa yónni fii kookaayu muhammadu may nabiyuhumul ummiy santal te julli ci ngën kun masa yónni fii kookaay muhammadu may nabiyuhumul lumiy nee amma baadu fa inna al fi lwaqti rahini yaxtaaju ila aydin nasifa wa ila xuqulin mutaxariratin min afkaari lgarb wa ila nufusin muqtaniatin wa muktafiyatin bima ansala allahu min al wa bima ata cheikhu alxadimu min attaalimi li tajdid l islaam waxat xasuna zanni fi saimayni li xisbi pastef baada an fakkartu fi sanihima muddatan tawila wa raaytu anna albilaada sa yashhadu masidan min altaqadumi wal isdihaar bi isnillahi fi aydihima wa aqulu lahuma inna kalimatallahi hiya al ulya wa hiya allati taalu ala aljumhuriyati wa demoxaratiyati wa li tasjiici saimayni allaftu haasihi alxasidata wa haasa nasuha nee na ginnaaw loolu nag réew mi waxtu wi ñu toll dafa aajowoo ay loxo yu set aajowoo ay xel yoo xam ne day am liberté xel yoo xam ne dañu moom seen bopp mën a xalaat seen xalaati bopp si xam-xam yi leen yàlla defal ak ni leen yàlla binde bind leen ñu nit ñu am xel xel moo xam ne nii du ñëw rek topp xalaati tubaab bi di tëral di topp rek daa réew mi daa aajowoo ay bakkan yoo xam ne nii dañuy doylu ay nit ñoo xam ne dañuy doylu doylu loolu yàlla wàcce ci ay atte man cee man cee teg réew mi ndax suñ borom rek a xam kon lim tëral na ne nañ war a doxale rek ku ko doxalewut da ngay esak faaw nag réew mi aajo woon na ñoo xam dañuy xam loolu fas yéene ko dund aajo woon na it ñoo xam ne dañuy ñëw li sëñ Tuubaa indi ci li sëñ Tuubaa indi ci ay njàngale ngir yeesale ko lislaam ñoom itam ñu ñëw doylu loo ko bañ a jéggaani ma neen jàng nee nag sama sama njort rafet na lool ci ñaari kilifa yi nga xam ne ñu jiite Pastef ginnaaw bi ma xalaatee ci seen biir diir bu yàgg gis naa ne réew mi jot naa ne réew mi dana gis ak yokkute ak avancement bu jëm ci kanam bu gën a dolleeku ci kattanu yàlla ci seen ñaari loxo ñoom ñaari jiit yooyu nga xam ne ñoo jiite Pastef ma leen wax na na leen baatu bi yàlla muy féete kaw dëgg rek muy mujj dëgg mujj dëgg moo féete kaw république moo féete kaw démocrate démocrate yi tubaab yi tëral nekk ci dëgg rek nee na bëgg leen a encouragé ñoom ñaari njiit yooyu nag moo tax ma taalif xasida gi tax ci xasida gi mi ngi tàmbalee ci taalif bi mi ngi tàmbalee ci nii ma koy bëgg a waxee